l'artisanat est un secteur primordial, non seulement pour l'insertion des jeunes en leur donnant un emploi et en leur donnant une éducation, mais également, c'est également un facteur de stabilité sociale, car permet d'avoir une seconde chance à des centaines de milliers de jeunes habituellement exclus des structures formelles d'éducation comme l'école ou bien également certains métiers formels. nee na mais avec la venue de notre nouveau président le président Macky Sall gis na ne sourds-muets yi ñu leen di bàyyi xel di leen sóoraale ci lu bëri. nee na loolu dalal na xel parce que ñoom ba ñuy xale la jàng dem ba sem 2 am seen i entrée en sixième di taxawaalu amuñu lycée bu ñu jàng nee na ci lañ leen mafaal bu nekk CREC jël leen defal leen formation en informatique ñu am seeni attestation nee na mi ngi gërëm mafaal ak monsieur Ndeye bu CREC le ministre Mary Teuw Niane moo ñëwoon jox leen seeni diplôme fii en des attestations en informatique nee na ñu yóbbu leen GIZ jël leen en formation jox leen seeni attestation kon ñoom nee nañ ci milieu artisan yi ci lañ bokk looloo tax tey le ministre monsieur Pape Amadou Ndiaye docteur Ndiaye limaale leen ba indi leen avec la collaboration de monsieur mbay bi xam ne moo leen defal formation ba ñu tey ñu egsi fii nee na ñoom nee na ñoom nee na mënoon ngeen ne c'est des fourbiers duñu leen sóoraale ci dara mais comme tey notre très cher ministre qui parmi nous di un pur Thiessois nekk ak ñun di saytu di saytu di saytu bay intégré ay sourmier nee na loolu ak sant yàlla la nee na am na ci ñoo xam ne sëy nañu am jëkkër am na ñu ci am ay jabar mais lépp ñu ngi toog rek di xaar yàlla ne tôt ou tard dinañ am métier bu ñu liggéey parce que ñoom dañu bëgg liggéey jàng nañu nee na mënuñoo wax mais seen téléphone yi ci la ñuy liggéey ci la ñuy def seeni message ci la ñuy wax seen soxla. ñu ngi am kontante bi bi nga xamante ne tey yàlla def na jeunesse bi nga xamante ne moom lañ ñoo fi jóge avec une parfaite collaboration avec la commune de Diass et coopérative allemand boobu boobu noonu maa ngi wax ni. nekk la loo xamante ne lu rafet la ci jeunesse bi tey ah madame le maire Mariama Dione am nañ kontante ci moom kontante boo xamante amul app ndax tey gis na ne tey jeunesse bi sonn nañ sonn boo xamante ne ñu ngi wolu fu ne pour ñu am seen lijaasa pour ñu am li ñu waral mooy liggéey yàlla defal nañu tey mu boole ñoog ñi nga xamante ne ñooy coopérative allemand ñu jóge fële seen dëkk ñëw ni fii di investir ci Sénégal yi ci jeunesse yi pour ñu am lijaas pour ñu liggéey kon vraiment maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax su ko neexoon tey mbir moom bu wàccee mu bàyyi ko mais tey bëgg a njaboot bëgg a liggéey gëm sa bopp moo waral tey mu jàpp loolu yóbbu ko ci jeunesse bi avec monsieur président Cheikh Tidiane Diouf bu ma taxawee fii tey ginnaaw yàlla. moom la bokk na ci ñi ma formé en étant des jeunes socialistes tey ji bu ma taxawee fii di wax am naa ci fierté bu baax a baax ndax moo ma forme tey ba ma mën ko wax ginnaaw yàlla maa ngi lay remercier bu baax monsieur le président Cheikh Tidiane Diouf avec une parfaite collaboration avec le monsieur le ministre gis nañ say jéego ñu ngi wax ni ñu ngi lay ñaan nga gën ñu dimbali bu baax a baax gën a taxawaaye jeunesse surtout wéejuru Sénégal mais surtout wéejuru Thiès monsieur le ministre chargé de l'artisanat monsieur Ndiaye docteur Ndiaye ñi ngi lay nuyu di la sargal di ñaan yàlla mission bi président Sall confié la eh nga def ci euh, ay résultats yoo xam ni képp ku mujj sa nekk ci sa secteur de l'artisanat bi eh bien yow sa passage dina effacer liggéey bi ku fi mos monsieur le ministre nous avons nous vous avons pratiqué comme un militant de l'école avant ñu lay confier des responsabilités au sommet de l'État li ma la wax xam nga ko man xam naa ko je suis de benn Fall xam naa li nga doon investir sur le système éducatif gis nga boo amee sa dëkkandoo muy wut koom investir ci say doom gis nga sa doom yooyu bu ñu réussir ëllëg ñoo lay yóbbu Makka ñoo lay wutal R plus 2 ñoo lay wutal lu ne donc au nom des parents d'élèves monsieur Ndiaye ñoo ngi lay sant di la gërëm di nuyu monsieur le gouverneur di nuyu le monsieur le préfet Diagne c'est des autorités yoo xam ni ils ont la haute culture de l'école parce que du ñu def dara ci école bi kilifa yi toog te du ñu wëlbatiku ni ana wéjur yi ana parents d'élèves yi ñun loolu xam nañ ci di nuyu également le président de la des chambres de métiers sama jeune frère monsieur Sey macha allah di wax ni euh, di sant aussi itam euh, la coopération allemande xam nañu li ngeen di liggéey xale yii man am naa ci doom am naa ci doom boo xam ni formation la def ci benn centre de formation bu nekk sama quartier Médina Fall je ne veux pas faire de publicité mais bi ma demee ba sentir ni ce gosse là il peut pas euh, réussir dans le système classique mais je l'ai récupéré très loolu nag heureusement que ñi ñu dénk suñu réew en l'occurrence le président Sall xam na ko moo tax actuellement mu def l'accent sur la formation professionnelle xam nañu suñu réew le plan bi ñuy wax plan émergent bokk na ko li nga xam ni mën na fexe réew mi émerger ëllëg suñu doom yi ñu fexe ba ñu am métier donc loolu monsieur le ministre ñoo ngi la ciy encourager parce que xam nañ ne secteur de l'artisanat c'est un secteur porteur boo xam ni ñu ko exploiter man dañu fexe ba suñu doom yii bu ëllëgee ñu yëngutu ci gis nga lii lii ñu leen di jox avant may ñëw interroger sama doom ci kër gi ni ko lan lañ leen jox mu ne ma papa gis nga li ñuy jox liñ ñu jox amul benn suñu moroomu électricien bu nekk Thiès boo xam ne jox nañ leen lu toll yi donc l'État sénégalais est en train de révolutionner vraiment la formation professionnelle. À l'entame propos, je tiens à exprimer toute ma joie et mon honneur qui me soit aujourd'hui pour présider à cette distribution de kits pour 193 jeunes entrepreneurs de la région de Thiès. Cette activité qui porte l'empreinte de la Chambre des métiers et de son partenaire stratégique, la GIZ, réussir au Sénégal revêt pour moi double, un double caractère. D'abord, il montre l'excellence des relations entre le pays frère de l'Allemagne et la République du Sénégal. Mais aussi, il montre l'importance la formation et de l'insertion des jeunes dans la politique du président de la République Macky Sall. En effet, à son adresse à la nation du 8 mars, déclare, je cite, J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour allouer améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement, de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Pour la première fois, le président de la République mettra à disposition 350 milliards pour la formation, l'emploi et l'insertion des jeunes. Cela montre l'importance qu'il donne à ce secteur et l'importance qu'il donne à la jeunesse. En effet, notre pays a été très durement impacté par la pandémie de Covid, ce qui a entraîné des difficultés à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, le président de la République à donner à toute la jeunesse l'espoir de prendre en charge toutes ces difficultés en reprenant en main la formation, l'insertion et l'emploi des jeunes. Et cela ne peut se faire qu'en passant par l'artisanat, qui est un des secteurs prioritaires de l'économie du Sénégal. Et cela a été réitéré par le président de la République durant son le dernier conseil des ministres du 23 où il a encore réitéré devant tous l'importance et la priorité du secteur de l'artisanat dans l'économie du Sénégal. Nous remercions également de la GIZ et de la GFA. Virgile willkommen. Deutschland ist ein Lieblingspartner von Senegal. Wir sind früh für Zusammenarbeit. Pour vous dire. Donc le, la Chambre des métiers et le projet Réussir au Sénégal a anticipé le projet du président de la République pour l'insertion des jeunes en mettant à disposition 195, 193 kits. Mais mon plaisir est encore plus mais aussi mon émotion. Parce que dans ces 193 entrepreneurs, il y a 24 sourds-muets, handicapés. J'ai été très ému du discours de leur représentante, mais cela montre également, et cela va en droite ligne avec la politique du président de la République, qui est une politique d'insertion, d'équité, et c'est cette insertion et cette équité qui a permis aujourd'hui d'avoir auprès du président de la République, de ministres conseillers, des conseillers techniques et beaucoup encore de responsables handicapés qui sont aux côtés du président de la République, qui montrent donc l'importance qu'il donne à ce secteur, qui n'est pas un secteur à part, mais un secteur à part entière de l'économie du Sénégal. Et donc, euh, en facilitant l'insertion des jeunes avec cette formation et ces kits, la Chambre des métiers, ici présente, mais aussi les, ses partenaires, ont déjà montré la voie à prendre. Nous demanderons à l'ensemble des présidents de chambre au niveau national de prendre exemple sur la Chambre des métiers de Thiès afin de travailler à avoir des partenaires et travailler encore à faciliter la formation, l'accompagnement mais également surtout l'accès aux équipements. Je, j'ai aussi ici un des représentants de la mairie, monsieur le maire de Diass. C'est une occasion pour moi de demander aux élus locaux de travailler à donner des espaces aux artisans. Parce que ils ont été laissés pour compte dans les politiques d'aménagement du territoire. Il s'agit aujourd'hui, monsieur le maire, de travailler à réparer cette grande erreur. Parce que l'artisanat est un secteur primordial, non seulement pour l'insertion des jeunes, en leur donnant un emploi et en leur donnant une éducation, mais également, c'est également un facteur de stabilité sociale car permet d'avoir une seconde chance à des centaines de milliers de jeunes habituellement exclus des structures formelles d'éducation comme l'école ou bien également certains métiers formels. Donc, euh, nous allons terminer par demander aux jeunes, comme l'a si bien dit le représentant des jeunes de Dias, que la jeunesse doit se réarmer La jeunesse doit savoir que l'espoir et le travail, comme l'a si bien appelé le programme Réussir au Sénégal, c'est ici qu'on devra réussir. L'espoir n'est pas ailleurs, l'espoir est chez nous. Et le président de la République, à vos côtés, travaillera à, y mettre, à, à mettre cela en forme, Inch'Allah, très bientôt, avec euh, l'allocution du 4 avril, mais également le 10, le président fera des déclarations fortes pour réarmer la jeunesse, pour leur donner espoir, mais cela demandera également pour la jeunesse que cette jeunesse soit à côté du président de la République, l'accompagne afin qu'on puisse demain aller vers l'émergence qui est l'espoir de tous les Sénégalais. di leen wax ne mbégte bi ñu am ñëw tey fekk ñuy joxe ay kit pour yombalal liggéey équipement pour xale yi nga xamante ne cent quatre-vingt-treize xale yoo xam ne ci département de Thiès muy mbégte ci ñun ndax loolu président de la république dafa woote que ñëpp takk jàppale xale yi ci équipement ci formation ca ci insertion ak emploi waaye ndokk ba ko président woote fekk na chambre de métiers de Thiès ak euh, ay partenaire am muy GIZ ak euh, AFG CFA GFA fekk ñoo ñooñu jiitu nañ leen ci di sant xale yi ci seen pasteef ak seen taxawaay di leen ñaanal équipement yi ñu leen jox yàlla na leen nekk lu leen jik ngeen continuer ba waxuma ngeen am ndam rek mais ngeen dem ba nekk des employeurs ubbi seen ay entreprise di ga gagné ci marché public yi di gagné ci marché privé yi employé yeneen i xale xel nangu na ko yal na leen ko yàlla defal di leen wax ne président de la république taxaw na pour jàppale jeunesse te le 23 le 8 mars déclaration bi wax na ne dina jël 350 milliards jagleel ko xale yi pour formation équipement emploi ak insertion muy loo xamante ne su ma nee gëj na fi waaye mën naa ne sax mësu fee am loolu président de la république mooy ko jagleel ndaw yi te yamu ca dafa ne tamit ci conseil des ministres bu 23 mars ne artisanat considéré na ko comme une priorité pour l'économie du Sénégal loolu muy ndam pour artisanat yëpp ak artisan yi kon nag président ci gàttal sas nañu comme sas nañu nag man leer na ma ne man artisan yitam jàmbaar lañu ay gor lañu suñ leen sasee dinañ xam ne ay jàmbaar lañ ko dikkee dinañ gën a takku liggéey ba li nga xamante ne loolu lañ soxla ci emploi ci formation ak ci insertion artisanat dina ko mën a joxal président de la république ndax xel nangu na ko ndax artisan yi yàgg nañ ko def fekk kan dimbaliwu leen ci dara xale bu jógee këram tëleen wala xale boo xam ne ci école jaaxal na ko wala ku xarañ ci ay loxoom yëpp dañ leen daan yóbbu ne la yóbbul ci sa nijaay ci atelier ba yóbbul ci sa papa mu jàppale la te loolu indi ay formation indi leen xam-xam te du leen laaj dara ba tey jii ñooñu ñooy artisan yu tey yi te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy les maîtres artisans de demain kon artisana jaaraama di remercier bu baax ki ñu dalal fii tey muy président chambre des métiers monsieur Sey ndax taxawaayam bii mu def ba wut ay partenaires ba ñoom ñu indi fi lii lii lu dal xel la ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla may kàttan ba mu continuer ko waaye tamit yeneen président chambre yi tamit ñu bàyyi xel ci partenariat yu mel nii ba ñoom ñëpp tamit yàlla jàppale leen ba lii nga xamante ne mooy la président li mu bëgg ci artisanat ak li mu bëgg ci insertion ak emploi des jeunes mu jaar ci artisanat jaar ci emploi ak chambre des métiers yi ak ministère de l'artisanat bi. Amadou Mokhtar Seye président chambre du métier de Thiès. chambre du métier dañu xam li nga xam ni mooy actualité tey mooy intégrer la jeunesse ci développement ak économique loolu moo taxoon ñu am ay partenaires yu am solo lu demee ni GIGN réussir au Sénégal ak cabinet CFA ñuy ànd ak ñoom ñu ñuy jàppale ñuy identifier le besoin des jeunes. pour mën leen dimbali ba ñu mën a liggéey wutal leen xëy ba ñu mën a liggéey loolu moo taxoon tey ñu daje fi di ci kanamu ministre de l'artisanat di jébbal 93 jeunes seen lija seen joxoon nañ leen ay lijaasa ba pare mais tey ñu du loon leen ak dolli équipement pour lan leen former woon ñu mën a adopté am équipement yu adopté ak système moderne bi nga xam ne bi moom ci lañ leen doon former estimation valeur bi ñun peut-être du ñu intéressé mais c'est important aussi c'est important c'est plus de quinze millions mais li nga xam moo gën a am solo mooy ñoo ñu tey kenn ci mënul jët approvisionner sa bopp ci wàllu équipement mais xam nañ ñi loolu tey daf leen nar a tënk moo tax ñu ni kon nañu la moo jàppaat ci suñu partenaire waxtaan ak moom pour ñu mën leen dimbali ba ñu mën équipement am équipement boobu équipement bi nag vraiment nekk na loo xam ne lii suñ leen ko joxee tey lan ci nar a toftal mooy euh, formation ci wàllu gestion ak euh, euh, norme ak qualité waaw parce que bu ñu xoolee jeunes yi am na lu ñu leen formé li ci gën a am solo mooy plomberie nga xam ni lu nar a bëgg disparaître la te tout le temps ci wàllu texte architectural te architecture plomberie mënul des ginnaaw ndax nit ñaa ngi tabax te dañu soxla ay plombier mais système yu jëkk yi itam ak yeneen nouveau euh, outils yi nga xam ne ñoo am bu ñu leen dimbaliwul itam seen liggéey day xaw compliqué loolu moo tax ñu gën a accès wu ci côté boobu dimbali nañu ay plomier ak ñiy def ko géréal locales dimbali nañu aussi les électriciens dimbali nañu aussi <coughs> ñeneen war na mat six corps métier yoo xam ni tànn nañ leen mais tey li gën a am solo mooy. formation bi dañ si jagleel pàcc bu am solo jas nga xam ni tey ku wax jas xam ni dëkk bu ñuy ubbi la actuellement bu ubbeeku ci àdduna bi la mais bu ubbeeku ci Sénégal mais surtout ci àdduna bi ndax fi la aéroport bi nekk. formation bi par par course course bu nekk diire na 10 jours. course yi ñuy jox tey matériel bi ñoom ñoo ñu permettre ñu atteindre mille un mille mille mille jeunes ci année 2020 bi voilà ça c'est très important. ci différents corps de métier nga xam ni tey loolu dafa bokk ci li nga xam ni mooy rôlu chambre de métier mooy fexe ba euh, jeunes yi ñu encadre leen fexe ba ñu liggéey. jeunes yi mooy par exemple ñi nga xam ni génn nañ ci école bi mënatuñu continuer liggéey ak ñi nga xam ni itam jàngal nañ leen former former nañ leen ci système traditionnel bi nga xam ni tey avec le nouveau nouveau stratégie de développement il faut jeunes yi bépp métier bu ci nit nekk il faut nga compétitif. parce que léegi marché yëpp c' est des choses compéti compéti dañ koy compétir da nga ciy compétir donc tey pour ñu dimbali artisan ba mu jot ci accéder au marché et tout sax il faut que mu compétit il faut que ñu jàngal ko xam-xam ci wàllu norme ak qualité ce qui concerne aussi le le le le les bâtiments gis ngeen ni électricité mu ngi ciy def ay affaire ainsi de suite léeg nga gis ku tabax ba karole ba pare ñu toogaat ñu ni euh, mu nga am fii ci biir ñu nar a tojaat karo yëpp te loolu responsabilité plombier yi dafay engagé wu. moo tax ñun vraiment sew sew yooyu la ñuy bëgg résoudre ba nga xam ni vraiment xale yi dinañu am gëmaat seen bopp xamaat seen ni xamaat ni encadré nañ leen seen réew bàyyiwu leen parce que ñun ñooy bras technique gu président wala ministre bi ci jeunesse bi ci l'artisanat actuellement nii ñu ngi liggéey xaj na bu ñu tolloo à l'heure du bilan dinañu wax aussi tam fi mu nekk nii ñaata ñaata la ñu formé mais daal ñun loolu moom suñu suñu tradition la quoi vraiment. deuxième phase bi mooy rek cibler jeunes yi gën leen dimbali parce que programme bi li ci gën a am solo mooy lutter contre l'immigration clandestine. Nicolas Delman. Euh, responsable régional de la GIZ ici à Thiès. La GIZ intervient dans beaucoup de différents secteurs, avec beaucoup de différents euh, partenaires. Et euh, lorsque qu'on a tout tout ce, tout ce bouquet à partenaires, on, a, on est à la mesure de répondre, de aussi à beaucoup de besoins des jeunes. On, on fait l'entourage des jeunes entre 15 et 35 ans. Et on intervient, comme je l'avais dit, dans, euh, aussi dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans la formation avec nos partenaires. Et euh, aussi dans un champ qui s'appelle perspective. On, va, on communique sur les perspectives. qu'on a ici au Sénégal. C'est bien de voir les jeunes. On, on sent vraiment qu'il y a l'énergie, on sent vraiment qu'il y, qu y, a une forte demande, que les partenaires nous communiquent à chaque fois. Et parfois, il y a un petit appui qui manque. Et euh, on intervient sur les volets de la formation et avec des choses comme euh, ici, on a, on a des appuis, des, des, kits de démarrage et ça permet après de, aux jeunes de démarrer avec leur destin. Et c'est bien de voir ça. C'est, on voit vraiment l'énergie. Et non seulement ici, même à Nianing et à des autres zones, où on, on, on, fait des petits appuis comme des machines à coudre et on a les résultats directs. Les, les personnes ils peuvent dès le début commencer avec leurs interventions et avec les savoirs qu'ils ont acquis euh, dans les formations. Dans, dans ce processus, on essaie de les accompagner à travers nos partenaires. C'est euh, nos partenaires qui font Euh, les démarches euh, pour accompagner toutes les idées qu'ils ont et aussi de trouver une entité qui répond à leurs besoins. Et là, on retrouve euh, certainement aussi des GIE et euh, un regroupement collectif pour euh, prendre une vision commune. Et là, on les appuie, alors euh, faisant des renforcements de capacités organisationnelles et bien administratives aussi. et euh, économique. On peut que euh, on a formé plus que n'est-ce pas, euh, personnes euh, et on a créé avec ces 10 000 personnes aussi, euh, on a essayé d'insérer un maximum possible. Je crois, je chiffres exacts, mais on peut dire qu'on a essayé de toucher le plus de personnes possible, donc pourquoi on a tous les secteurs, mais aussi des secteurs Euh, l'énergie renouvelable, euh, la digitalisation. Et ça, ça mène déjà les voies dans le futur. Si on parle des 10 000, ça touche même euh, à peu près 12 000 jeunes euh, qu'on a touchés les deux dernières années. ce sont à peu près deux tiers qui nous donnent le feedback d'avoir ou bien créé une activité génératrice de revenus ou bien augmenter leurs revenus euh, dans un travail qu'ils étaient en, euh, en, cours. Et ça, un bilan satisfaisant euh, pour, euh, qui, qui, qui, montre que notre travail, c'est un travail du pratique et dirigé vers le besoin euh, qu'on retrouve ici au pays. Si on prend ensemble insertion et s'il y a déjà des gens, qui, euh, des, des, personnes qui nous, euh, que nous formons qui ont déjà un travail, ils ont une augmentation. Euh, c'est à peu près un taux de deux tiers. Deux tiers. Hein? Mmh. C'est selon les sondages qu'on a fait récemment. On est dans un processus de planification et, et euh, on va surtout pas euh, quitter une stratégie euh, qui, qui, a du succès, hein, euh, mais les détails à venir.